attaque bi daal am na doole stade yéene nan naan kon gaynde yi Sénégal jël nañ geneenu gaynde capp ci soos 24 heures naan kon la ñu xamoon tari nañ ko bés bi le jour naan kon ku nekk si 19 janvier Rigobert Song ci yéene kaay bi naan kon en tout cas ñooñu mënoon le quotidien le kon teex teex may ree démb Sénégal bégal nañ nation bi le soleil yéene kaay naan kon gaynde Sénégal yi ci boppam ñoo wane xarañte waaye tam daal di bégloo réew mi l'observateur naan kon saribon diggante Ismaïla Sarr mi nga xam ne buteur la passeur la waaye tam di homme du match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 dama ne woon sax mu jéggi match bi du ko continuer. man seetaanu ma ko. waaye nag après bi ñu dugalee rek laa bi ñu dóoree trois laa ne ah su ma neexee seetaan fu mu nekk nii su ma neexee seetaan waaw. laas yéen kay daal di leen di fayal l'attaque en puissance des Lions suñu gaynde fu mu nekk fépp nañu xatraaye ñu ku ci mel ni Ismaïla Sarr moo njëkk dugal Habib Diallo feelu ko saajo maane wan na leen ne kon ngalaju yaa ngi fay ba léegi te saajo maane bu duggee ñu xam ne dugg ñu xam ne Sadio Mané dugg na ci kaan bi dëgg te démb war na leen boppam Aliou Cissé moo seul regret le but encaissé moo ñu metti ñun ñii sax benn bi boobu mënoon naa ñàkk ah! xam dam day rafet nag waay yéen bëgg ngeen cat 3-0 la ñu njëkk dóor dóoraat 3-0 imagine ñu yor suñuy 3 rek di ko séddale traa ngay 3 la ñu yor yéen nag nangul leen benn bi ñu leen dugal ndax mu doon seen fànq cat waaw moment boobu daa fekk mu def ay remplacement ba pare ñooñu laata ñuy nekk ci benn bi ñu naan mais waa ji lan lay def bii ba dugg donc dafay xaw a jaaxal nit ñi. heureusement que les lions se sont rebuffés. Mhm. Euh, Sadio Mané dugal troisième but. El tactico yëpp ay tactique la le quotidien yéen kaay ne CAN le Sénégal bat le Cameroun 3 buts à 1 cœur de lion l'équipe de Cissé est qualifiée pour euh, les huitièmes de finale le coach voit loin il nous reste cinq matchs à jouer parce que nag jogante la rek de ñaar jàll na mu des ñaata. cinq matchs lépp ndam lañ ko bëgg cinq matchs yi moo la yóbbu ba final. Mm. fi ñu toll nii nag après boo duggee ci huitième de finale yi amul ay dóor di xaar kee de déedéet. dóor toog dóor jàll bu ne dóoree nga toog boo dóoree jàll fu mu nekk dugal rek moo fi des dugal rek bu kaa yi leeree dugal. Ah. Ah. dugal rek amul secret ndam kay dugal rek. moom lañu ñu am Côte d'Ivoire. waaye gannaaw tiituñu loolu. tiituñu loolu. waaye c'est jouable tiituñu loolu. Côte d'Ivoire Sénégal voilà. non peut-être ce sera le deuxième. Hmm. voilà tiituñu loolu tiituñu loolu tiituñu loolu tiituñu loolu. waaye Guinée tamit gis ngeen Guinée lu mu nekkee taay. ah Guinée bu góorgóorloo mën na jàll. Ah. parce que moom ak Cameroun ku ci nekk da ngay jouer calculette. Hmm. ñoom ñoom ci ay calcul ñu toll. waaw. très bien mu ñëw deuxième <laughs> troisième mhm. euh, mais Cameroun des na ko des na ko tam beneen match contre Gambie contre Gambie Gambie moom presque éliminé. Oh, oh. ñaari défaite. ñoom seen dellu ginnaaw bi ñu daan tukki sax dañu lay wax ne ci cosaanu nit ku ñuul bul dellu ginnaaw <laughs> boo génnee sa kër ba pare euh, tàllal. tàllal. <laughs> Sénégal jàll na mu des diggante Cameroun ak euh, ak Guinée. dañ leen delloo laa di awtuma yaakaar si ñii. fekk nit ñi de euh, euh, euh, nen ne sama jigéen nee na ah, sama samedi bi pass di ngeen fi nekk def lu leen neex. parce que si moom moo fi nekk ngeen yaru. Ah. <laughs> bu ci doon. mais <laughs> ne la xam nga man foofu nag yaa ñoo fi nekkoon def ñu ñu neex. jël table yi ko caméra yi ñu féetale ko fële. dëgg la kay. waxtaan bi. yéeg ci kaw table yi ci kaw table yi. mais si moom moom nekk ku nekk na ni nag. Ah, mais c'est vrai que da ngeen la tey. non c'est que batterie moo wàcc tey. waaw tey dafa wàcc la l'attente de la liste du conseil constitutionnel. ah pour man liste yi nii. ko coow rek. moi ça me stresse un peu. le Sénégal en taille patron. waaw Sénégal nag fu mu nekk nii wan na ne ne ñooy les tenants du titre étoile bi ñun deuxième bi la ñuy wuti ji nekk ñu fa pour seetaan suñu gaynde yi en tout cas ña nga ca yoon wa yoon wu baax bi ngeen ne yàlla baax na continuer leen ko noonu rek l'évidence Sénégal 3 Cameroun benn Dieu Niancho est grand <laughs> démonstration de force wala nañu delloo imposer leen ne bu dee gaynde rek am na mm. ñun la solidaire les Lions donc corrige les indomptables Aliou Cissé coach des Lions un gros match Kalidou Koulibaly dikk cette qualification est un bon signe Ismaïla Sarr on a tout donné waaw waaw ñun di leen joxe rek ñun xoola di leen joxe rek ñun loo leen joxe ñu jël dañoo xaw a bàyyi. mooy bu ñu defee changement yi. non bien avant même changement yi. Hmm. li ko jëlee li ko jëlee je peux dire soixantième ba quatre-vingtième bi. les hmm. vingt minutes là mais ça a été très compliqué pour le Sénégal. Badou. waaw oui. disoon na ci ñun. non mais c' était compliqué. non c' était c' était un peu ah, a gagné mais c' est pas trop ça. prestation bi des na de. des ah mais des na quoi. des na mais mais mais vous savez la particularité de cette CAN euh, de cette année c'est que ñi coaché l'équipe du Sénégal de cette année c'est vraiment le le le groupe de l'équipe de 2002 et pareil aussi pour le Cameroun. ay euh, euh Rigobert Song mm -hmm. Samuel Eto'o et compagnie ñoom ñooy coaché donc c'est vraiment c'est pas donné c'était pas donné. retrouvaille revenge revenge CAN le Sénégal ba donc le Cameroun euh, ñetti bal ci euh, benn bés bi le jour foofu la génne la fin de l'histoire 90 minutes et revoilà 90 donc euh, Cameroun nag def naa boo so boo seetee statistiques yi li mu ñu gañe moo ëpp boo seetee match officiel moo nekkoon favori sax booy seet boo seet ci côté statistique bi moo nekkoon dix-septième match tout compétition confondue confondue mais boo jëlee compétition officielle yi surtout à la CAN mais Cameroun def ñoo yàgg noggatu ñoo yàgg noggatu mais ci xawoon na nekk suñu bête noire. ci bu ko wax sax depuis trente ans trente quatre ans. mosuñu ko mosuñu am ndam ci kanamu. Cameroun déjà Ismaïla Sarr mii dugal moom nee na mi ngi fàttaliku élimination bi ñu Cameroun éliminoon euh, au stade des des quarts de finale boo fekk moom presque xale la disons. mais loolu loolu moo nekkoon ci boppam. donc cette génération la est venue avec un esprit de revanche. c'est ça. nag nee na bu ñu naagu. ah. yéen a dooroon sunuy mag ñun ñooy fayul sunuy mag. c'est ça genre googu la. c'est vraiment c'était un match de revenge. c'est vraiment ça. Aliou Cissé nee na bu ñu naagu. ah bu ñu naagu de. nañ tegu ci yoon bi rek yoon bi tegu baax na. Eh, wax na dëgg moom ak Sadio Mané. bu ñu naagu waaw wax na dëgg bu ñu naagu. wax na dëgg mais Rigobert Song moom d'accord na. nee na nag da ngeen ñoo mën dóor li des ci kanam moo ëpp. le Sénégal a été meilleur que nous nee na da ngeen ñoo mën dóor moom nangu na teel a nangu da yombali duma Ismaïla Sarr en fin euh, déterminant et euh, décisif en tout cas li doon xaar ci moom kon démb gis nañu ko fi les vrais lions se qualifient en huitième de finale Mané et compagnie ne font pas de teranga déedéet xanaa suñuy ñetti point rek la ñu yor teranga trois daal la ñu yor <laughs> di leen ko jox kuy ñëw xam ne suñuy teranga yi trois la ñu yor <laughs> waaw leneen looñu jox ñu jël actualité ba tey bu weesoo tàggat yaram proclamation de la liste définitive des la présidentielle waa F24 nee ñu nag suñu juróom-ñaari Kocc Barma yi les sept sages nee na nag li ngeen def ni seet leen ci yàlla rek jël leen seen i responsable da ngeen ceet ci yàlla devant Dieu et devant l'histoire ndax am na noo leen di dox eh, eh, doxalee rek waaye wurul fay ci yéen waa waa waa F24 ñooy woote loolu de il faut éviter le syndrome loolu comorien invite Mamadou Mbodj moo wax loolu Mamadou Mbodj et compagnie lance suñu plateforme anti fraude dañu bëgg sécurité élection bi loolu la ñuy wax DGE nag demande au candidat de désigner un plénipotentiaire auprès des préfets et ou au sous-préfet au plus tard lundi maanaam bu liste bi génnee kon nag à bon entendeur salut bien boo ngeen dem lijjanti seen bopp gaaw ñu ngi ni publication de la liste définitive des candidats présidentiels 2024 tey am ñu ba minuit mën nañ génne nii sax liste bi génne nii nii nii boo génne nii ci nii nii rek nii rek 10 heures voilà am nañu ba minuit pour ñu génne liste candidat yi nga xam ne nag dëgg dëgg dëgg dëgg ñoo moom campagne électorale. bu ñu bàyyi ba nit ñi nelaw ñu koy génne ah. non min wi xanaa lu waaye mën a xaar xaar xaar xaar tey moom xam naa ne moom ñii affaire yi soxal ah ba min wi du ñu nelaw dañuy veillé mm. waaw. publication de la liste définitive kon nag ñëpp ñu ngi xippi seen i gët di xool conseil constitutionnel ngir xam lu fay mujj moom la ñuy ah, xaar en tout cas ah? ndax nag mbir yi bëri woon na coow lool lool lool. tribune yéen kay daal di dikk présumé remise gracieuse de l'État lii moom doy waa tamit de foofu bu sàccee wala neexal la rek neexal la rek wala wala kontaan la rek dama xamul de 120 et 150 de francs CFA en faveur de Barrick Gold et SGO l'OFNAC saisi kon na leer rek waaye mi mi 24 mi nag mayul dara kon Mouhamed euh, euh, mu Ndiaye Cissé de ah mu Ndiaye da doon wax ne. Hmm. bind lettre di sàkku ci président mu wax ci mooy yaa ngi wax président Macky Sall mu jalgati. maanaam mu dugal ci loxoom loo xam ne yoon daf koy doxal na muy doxalee. Hmm. nga bëgg le chef de l' état intervenir mu Ndiaye Cissé nee na loolu wax fa dëgg kuy réfléchir war koo def. donc mu Ndiaye Cissé la mu bindee loolu. Mimi 24 tontu na ko de. dëj na ko ci ab àndam. Aminata Touré ak mu Ndiaye Cissé beneen feuilleton la. daanaka mi ngi nii ci yéene kaay bi présidentiel les membres du conseil constitutionnel invité à se hisser à la hauteur des lions sunu gaynde yi def nañu ndam wane nañu kon ay sénégalais lañ yu mat sëkk kon nag suñu juróom-ñaari kocc barma yi di sept sages yi wane leen seen bopp jamono joojee journalistes yi ñu ngi leen di formé ci wàllum couverture médiatique euh, euh, ngir lépp aw ci euh, yoon ci présidentiel bi loolu moom mission Simon Faye la donc ñun fii dinañu teg ci code laata ñuy dem ci élection yi euh, mariage de même sexe maanaam góor sa yàq góor wala jigéen sa yàq jigéen en tout cas waa jàngu bi nee nañ mukk du ca daal xel xalaatu ko les évêques du Sénégal s'opposent à toute forme de bénédiction boo amee ñu koy nangu en tout cas ñoom ci boppam bokkuñu si ñi koy euh, nangu mën nañ dem ci euh, Odia ah Odia tey fu mu génne njiitu réew mi président Macky Sall ñoo ngi gis bi di circuler muy jubilé di wane boppam. ci biir avion euh, waaw waaw ci biir avion bi. mbégte la ne démb gannaaw ba Sadio Mané dugale suñu ak ñeneen ñi non lion du foot qui bouffe euh, du lion domptable à la CAN 2024 tranquillité garantie pour un bon moment waaw njiitu leen président Macky Sall lii de sañu ma wax lu muy def nag. damay bañ ci ma yóbbu fële ah ko wax nag. Euh, les manifs contre la vie chère. <laughs> waaw il est humain quand c'est du ndaw rabine non. Ah, nee na bi ndaw rabine ah. ci li ma fokk. waaw lébu dañuy def ndaw ndawlaat bu doon lébu moom xam naa ne ndawlaat bi lay def. Hmm. xam nga suñu mbokk séeréer nag dañuy ñoom ngel la ñuy def yéen ngel. bii moom pàkk ñëwul. Ah, bu dee suñu mbokk. xeet euh, euh, xeet na day yaaba. alpulaar yi ñoom lañuy def wango. wango bii du wango bii yaaba lay gën a nuróol wala ndawlaat bi. bii <laughs> yaaba lay gën a nuróol yaaba <laughs>